ku wax weeru koor wax mauvaise haleine kon ci loolu la nar a am yéene pour waxtaan ak yéen ndax weeru koor gi moom su xasee ba teru pour ñenn ñi dañuy am yenn jafe-jafe yi ci seen biir maanaam dañuy am ulcère wala estomac wala ay reflux gastrique maanaam dañuy sentir ay xeetu gémmiñ bu ñu wax ak ay nit ñi ñu dëmmooyu di wane ginnaaw di tëfli wala ñuy sentir ñenn ñi dañuy déranger wu dañuy déranger ay nit ba ñu ci bari ci ñoom dañuy sax takk masque ndax bañ a déranger ay nit surtout weeru koor gi. loolu nag wax dëgg yàlla nekk na lu sonal askan bi ñu bëree ci askan bi dañ koy sentir di ko jàmbat. dañ fay def traitement bi nga xam ne dafay jëm ci wàllu mauvaise haleine généralement. koy raxas si biir bi raxas ko bu baax ba mu set fépp ci seen yaram ci wàllu ulcère. wàllu estomac may la ay garab yi ko faj ci put bi ndax am na ñoo xam te dañu am daal wala angine loolu itam ba tey day bokkaale ci gamme de traitement bi ñu lay jox day fajaale daal faj angine ak fu mauvaise haleine bi mën a joge am na ñoo xam te ne nag seen signe bi dafa am problème wala ñu am problème bucco-dentaire wala seen signe yi wala bëñ yi day am ay gàllankoor gamme bii ñu leen di jox am na lu ñuy broso am na lu ñuy naan amna itim ay ñaan yi nga xamanteni dafa jëm ba ci walu ngelaw seytaane ñen ñi ci seen siñ la nekk ci siñ bi buñu broso neena nee leen ndox mu xonq lay génn lu mel ne deret wala ndox mu jaune bi xamanteni day dem ba di am xet loolu yëpp dañ leen koy fajaaleel généralement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmande bi nga xam ni moom macha allah gam complet la buy fat lépp lu jëm ci walu mauvaise haleine comme ni ma ko junjee sànq ci walu ngelaw ak ngelaw seytaane loolu affaire rab la mën nañ leen ci mayaale ay ñaan dañ leen di jox ay garab may leen ay ñaan yi nga xamanteni lépp lu jëm ci wàllu rab ak ngelaw seytaane dañ leen koy fajaaleel ci biir traitement am na ci ñi nga xam ne itim affaire liggéey la dañ leen liggéey dëddale leen ak nit tàggale la ak doomu aadama yi nga xamante ne ñoo nekkoon autour de vous yaa ngi koy amee fii ci Dakar Géejawaay arrêt Dubales kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bii di Dakar 77 169 45 45 wala nga jël 77 646 41 21 ñi nekk Touba mën nañu woo ci 76 283 98 69 Janatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni am na livraison à domicile gratuite foo mën a nekk fii ci Dakar incha allah ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba.